bismillahi irrahmani irrahim rabbi srah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxna wa asbaxal mulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inna nasaluka xayra ma fi hada l wa xayra ma baad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 jaajëfal xaaj sëñ Mbàkke si la mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak ciraanga ak ci def dara démb bi ñu yëkkati jataay bi noo ngi tolloon ci suñu tomb juróom-ñaareel doon ci jàng liy sabab suñu cofeel ci yonent bi yokk lan mooy yokk suñu cofeel ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw aja tàkkowan Medina aja wan li yokk sunu cofeel ci yonent bi mooy di ko fàttaliku moom ci boppam di fàttaliku ay jaar-jaaram ak definam jéem a taxaw ci njubam gi waaye di dund sunnaam si ba ca tege ci li yokk sunu cofeel ci moom mooy di fàttaliku ak reconnaître xéewal gi yàlla xéewalal jaam yi ci yonent bii waaw xéewal gi yàlla xéewal jaamam yi ci yonent bii waaw laqad manna allahu ala al muminina ndeysaan sëriñ Cheikh ca gàmmam gu neex ga ni gàmm yépp neexee ca keroog ma wax inna min niamillaahi <laughs> inna min niamillaahi ndeysaan an yabaasa ndeysaan ilayna di ko benn bennal affaire bi kenn mësu koo gis moo tax léeg-léeg bu ñu demee ca ca course ba ndeysaan di gàmm ji sëriñ Moustapha daal di ne tëll ne asalaamaaleykum nu rekk nun ñëpp nu xam <laughs> yàlla na ko yàlla yokk wér bu discours bu discours arabe ba noppi rek ma ne oustaz Mbaye nanu ñibbi waaw oustaz Maodo mbay ma ne ko atuñ ñibbi xéewal googu yàlla xéewale jaam yi ci yónni leen yónent bi reconnaître xewal googu day yokk sa cofeel ci yónent bi bu ñeenteel bi waxtaan naa ko ci waxtaanu fajar ajjuma yi mooy bari julli ci moom bari julli ci yonent bi day yokk sa cofeel ci moom asalaatu ala nabi loolu moo doonoon suñ juróom-ñaar lu tomb ñeenti tomb bi laa ci indi woon mbokk yi mu ñëw ca tombub juróom-ñetteel ba tombub juróom-ñetteel ba ndax jataay ba tomb yu bari la woon te jataayu koor la woon te it koor amul nañ añi te ñëw <laughs> li tax koor neex mooy amul nañ añi te ñëw waaw déposé naa nag walla bëgg naa déposé ci préfecture ñaan ko ñaan ko autorisation bu fekkee noonu la walla yëglu dama bëgg def benn marche contre añ waaw dama bëgg def benn marche contre añ su ko defee ñu woote ko ñu ñëpp ñu génn ci mbedd mi waaw dem kolobaan waaw euh, contre añ ñëpp bind seeni pancarte waaw ñëpp ndeysaan ñëw ñu contre añ ñoom Guy Marius Sagna daañ ñëw jàpp naa ne <laughs> ñu contre añ waaw ñoom ñoom ñoom Barthélemy Dias ak ñoom xalifa Sall ñun ñëpp nu ñëw xam naa sàllin daañ ci sawar ñu def marche contre añ ndax keroog jataay bii fi ne xam nga ay semaine ngi ni ñu ne ci waaye ci koor ga benn bis lañ ko def ndax boobu añ amut añ li muy jural nit ñi <laughs> waaw boo ko laajee boo ko laajoon tey eh, ku mel ni eh, Aliou Lo lobbu maam jaara wala nga laaj ko ko mel ni Serigne Seck mii tey eh, C3S nga laaj ko waa Fari industrie wala nga laaj ko laaj ko ab ah, Abdoulaye Dia Sénico heure añ <laughs> ñaata temps lay jël ci barab bi ñuy liggéey ba ca noppee ci julli tisbaar ga kooku mënta ñàkk waaye heure añ yooyu su fekkoon añ amut wala ku ci nekk ñu defal la ci sa mburu rek tubarkàlla ngay xàmp di liggéey <laughs> su may jóg fi rek imaam lay Ndaw daal di may woo ni ma xalaat boobu moom teg ko ci suuf <laughs> teg ko ci suuf xalaatu ñàkk añ teg ko ci suuf dama ñëw sama juróom-ñetteelu tomb kon ca jataay ba ku bëgg yonent bi nuñ koy xame madaahiru mahabbati rasuli sallallahu alayhi wa sallam waaw ndax xam nga tey bu nit demee ca hôpital fekk fa docteur Moussa gay Albert Royer da koy diagnostiquer pour xam li ko dal dugg laboratoire su ko defee signe yi muy gis ci moom moo koy xamal ne feebar sàngama ko dal waaw signe yi muy gis ci moom moo koy xamal ne feebar sàngama ko dal am na appareil ba buñ la ko dëppee ne attention ah, bi monte na kat wala wàcc na kat wala baax na ku bëgg yonent bi alayhi salaam dafa am ay jeexantal yu ñuy gis ci yow nga di ko yëg ci sa bopp waaw dañ koy gis ci yow nga di ko yëg ci sa bopp waaw yooyu nag mooy sunu tomb juróom-ñetteel ba keroog waaw la jiitu ci li ñuy xamee ne bëgg nga yonent bi yow tam nga xam ne bëgg nga ko mooy taatuhu topp ko taatuhu topp ko ah waaw waaw topp ko ndax topp ko mooy mu jiitu ngay dox ci ginnaawam déedéet topp ko mooy ni muy def ngay def looloy taa loolu mooy ittibaa sorewuñu tey buñ fi jóge woon jëm cil ma xambakol def cortège motaar bi jiitu ki topp ci motaar bi daj am ku ci topp am ku ci topp am ku ci topp ñu toppalante rek ilaa Thiès wamin Thiès ilaa tiwaawoon wa min tiwaawoon ilaa ilaa rek li fekk yaa ngi topp ci ñi jiitu loo sori sori sori bu ñu àggee ces nga àgg saxaar ci ngaay naar ci ngaay lu lay topp moo tax bu fekkee alayhi salaatu salaam dafa jiitu saxaaba yi topp ci ginnaaw ginnaawam attaabiuuna topp ci seen ginnaaw asalafu saalih topp ci seen ginnaaw al al muhammad yee ñëw topp ci seen ginnaaw lu yàgg-yàgg rek dañuy teer yi incha allah kon topp yonent bi lu lay tekki mooy li nga dégg ñu naan da ko daan def boo xëyee li nga dégg ñu ne daf koo tere bàyyil loolu day dañ koy xame ci kon kii sopp na yonent bi am na cofeel ci moom te loolu bu yàggee yonent bi day day am cofeel ci yow te ku yonent bi sopp yàlla sopp la te ku yàlla sopp day wax nit ñi sopp leen ko waaw sayaj'alu lahumu rahmaanu wudda sopp leen ko yàlla day sopp nit na malaaka yi diw day sopp naa ko jibril mu naa mu ne ko maa sopp diw hmm? yàlla ne ko maa sopp diw doxalinam neex na ma waxinam neex na ma jëfinam nangam nangam ay waay waay jibril maa sopp diw waay sunu borom wax ko jibril jibril daal di wootee benn conférence de presse benn point de presse malaaka yépp ñëw mu ne leen diw doomi diw ak diw dëkk ci dëkk sàng réew sàngam de département sàngam région sangam waaw dëkk sangam yàlla daf ko sopp ba nee na sopp na ko man nag sopp jibil man nag sopp naa ko ndax ku yàlla sopp ma sopp la malak yépp ne ko nun tamit sopp nañ ko mbokk yi cofeeli malaaka yi cofeeli jibril cofeelu sunu boroom cofeelu yonanti bi ne sëpp ci waa ji mel ni ak cofeelam dañ ko su sotti ci ndox mi jaxase ko ci ku naan sopp ko loolu lay niroot loolu lay niroot yal na nu yàlla boole sopp waaye nu soppante man de sopp naa leen waxoon naa ko yaay Maodo du xam <laughs> yaay Maodo ndeysaan cey may waxtaan ci ka yonent bi jàppoon ci saaba yi ne ko ndax yi dama laa sopp mu ne waaw waaye ma daan ne ndax yëg ngeen dama laa dama leen a sopp rekk yaay Maodo bàyyi fa ndékki la waaw keroog dégg naa ndékkiwut caay wàjj leen yàlla nu yàlla boole sopp man de sopp naa leen les sénégalais les sénégalais ñu ne ci biir réew mi ci nekkut maa leen sopp sunu mag ñi maa leen sopp allahu akbar magi démb yi maa leen sopp waaye maa soppi magi tey ilimaan yi sopp naa leen de yàlla xam na ko ustaas yi yépp sopp naa leen waaw sëriñ si xalifa yi maa leen sopp <laughs> yàlla xam na ne maa leen sopp waxoon naa ko ca Ashura ba ca conférence ba jóg taxaw ne ña nekkoon laaj leen ma fu ma leen def ñu laaj ma ko ma laal sama weenu càmmoñ bi fii ci xol bi ne leen fii laa leen def ñu bëri xëm waaw <laughs> ñu bëri xëm hmm? waaw waaw sopp naa leen de Sénégal yi ci biir réew mi ñu nekk bitim réew nag ñëpp sopp naa leen yàlla xam na ko yàlla na yàlla boole sopp kon ku bëgg sa cofeel ci yonanti bi yokk da koy topp da nga koy ñaareel ba bëgg sa cofeel yokk ci yonent bi da koy màggal da koy wet danga koy respecté da ngay ami teggin sa digganteeg moom danga koy màggal taazimuhu da ngay màggal yonent bi jox ko cër boo joxul kenn waaw waaye danga koy danga koy respecté waaw dangay ngay respecté waaye dangay ngay ami teggin ami teggin ci moom mooy tax doo wax muhammad rek muhammad muhammad déedéet da ngay wax sayyiduna muhammad teg ca sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy teggin sa digganteeg moom hmm? mbokk ma daa jënd ab xaal mbokk ma dafa jënd ab xaal imaam lay Ndaw ndànd daa di indi xaal bi ci kër gi nag dugg ci téer yi di seet nan la yonent doon lekkee xaal ndax daf ko daan xar ndax daf ko daan toj ndax daf ko daan bënn moom daal nu mu ko nu mu ko daan lekke masala ma të ko ticc mu ne kon na fi bàyyi xaal bi ndax léegi tey mu lekke ko nu wóoteeg nam ko daan lekke te kon su boobaa day wóoteeg moom mu ne ëw ëw waaw loolu mooy ay teggin ànd ak moom mbokk ma daa ñàkk teggin lool toog di di bokk ak yonent bi añ di lekke càmmoñ gauche bi la doon lekke alayhi salaatu salaam ne ko te ngaa jël sa ndeyjoor bi mu ne ko sama sama droite bi jotul sama gémmiñ gi xam nga arab boo xam dafa ñaaw sama loxom ndeyjoor bi jotul sama gémmiñ gi yonent bi ne ko yàlla ba mu ko jotati keroog la ko gëj jot bi ni mu faatu ñetteel bi ci li yokk sunu cofeel ci yonent bi imam Pape Samb euh, Jibril Taal moom moo doon jiite jataay ba bari lu ñu koy fàttaliku bëri lu ñuy fàttaliku yonent bi day yokk sunu cofeel ci moom waaw mébét koo gis mébét koo gis waaw ak bëgg dajeeg moom ëllëg wa shawqu ila liqaa waaw aja Zeynabu Faal ndeysaan ca ajam nga tëttë waaw ca ajam nga fu mu rek mu nga naan bëgg yonent bi ba xëy na cëpp waaw jal Zeyna bu Fall yàlla na ko yàlla yokk yërmande waaw xam naa bu ñëwaatoon Sénégal xëy bés te gisoo ko ci réseaux sociaux yi ak jafe ak whatsapp yi jàngal may dox ba tey waaw isaa maatal abdu in xata amalu illa min thalaas waaw ilmun yuntafau bii boobu yàlla na ko topp waay ñeenteel ba ci li yokk suñu cofeel ci yonent bi defe naa yaa ngi noté imaam kook ndeysaan inspecteur Arfan ñeenteel bi mooy bëgg bëggi mbokkam bëggi mbokkam day yokk suñu cofeel ci moom ay jegeñaaleem ña ca nekk ca diina ja ñu ci dugg ñépp nga sopp leen ndax sopp nit te soppooy mbokkam hmm, soppi bokk te soppoo nit moom tamit waaw dangay ngay sopp xaraabatuhu sopp ngay sopp ay jegeñaaleem day yokk sa cofeel ci moom sopp ngay sopp alu bayti alu bayti day def cofeel day yokk sa cofeel ci moom soppi ngay sopp ay soxnaam ay soxnaam sopp ngay sopp ay saxaabaam ma ne cofeel yii xaraabatuhu alu baytihi azwaajuhu saxaabatuhu sopp ngay sopp ñooñu def day yokk sa cofeel ci yonent bi alayhi salaam ndax ñii la fi am ñoom lañ fi am waaw tabarkàlla kon sopp leen day tekki sopp moo tax nit ku sopp njabootam mu sopp la ku ko sopp sopp njabootam wolof ne na ku ku ñëw ci kër bëgg jeeg bi ci kër gi may la wogg naxal ay doomam wala fa ko daan wax may la wo ku ñëw ci kër gi fekk jeeg bi ci kër gi comme nogay nga nga nga bëgg mu may la wogg bu buy togg reer naxal ay doomam euh, juróomeel bi ci li li yokk sunu cofeel ci yonent bi mooy sopp sunnaam si sopp ñiy woote jëm ci sunna si sunnaam si ñiy woote jëm ci sunnaam si ñiy woote jëm mooy jàngalekati diine yi mooy yarkati daara yi mooy sëriñ si mooy ña sëriñ sa la démb waaw ilimaan yi ñooñu nga xam ne dañuy woote jëma ci sunna waaw nga sopp leen copp gu dul jur par parloo maanaam sopp ñi bañ ñi te bul par parloo ci kenn danaa wax sëñ Mbàkke ne ko mu jóge ci jotaay bi léegi yàlla ko yàlla yokku wér mu ne ko sëñ Mbàkke léeg-léeg ci pénc mi loolu dal nit waaw sopp Euh, sopp ñi woote jëme ci diine ji nga daal di sopp ab groupe beddi ab groupe sopp ab ustaas beddi ab ustaas te ñu ngi jàng bu set laa nu farriqu bayna ahadim min rusuli bu set nu jàng ko ma ne suñ Mbàkke sunu borom daf na yonent bi ku baax nga mu ne ko waaw mu ne ko nit ñi yaa ci gën ne su kay mu ne ko sa xeet ñu baax la mu ne ko waaw mu ne ko xeet yi ñoo ci gën kenn daal laa xam ne moom ci xeet bi moom bëgguma ko mu ne mooy kan mu ne koy parparloo ku parparloo rek dindi ko jox ma ma duma man maata mutaaziban daxala naar yàlla bu ñu parparloo kon bëgg sunu yonent bi daf lay jural nga bëgg ñuy woote jëme ca mhm. danay faral dina nettali lu am solo oustaz Sidi Xaali mii nekk sa bi xutaan jamono mi nekk waa mi ci ci ci Cees dama fa ñëw di def si waxtaan su ma duggee njaga njaay ba mu tolloog waa mi foofu EDK bi nekk tey waa mi ngi ci ginnaaw booba EDK bi amu woon su ma tollee foofu wàcc ci euh, wàcc ci njaga njaay bi ndeysaan ñu gàttandu moom ma ñëw benn bis ma agsi rek gaare bu Mercedes <laughs> waaw di dawal maa doon xor-xor nag ba agsi rek gaare wàcc ndax bi ma mën a gudd eh, ni ma koy defee léegi daw ma ànd ak kenn waaw ndax damay wax su ma àndee kenn su ma dóoree oto bi fenn mën nañoo bokk loru mbaa moom mu loru mbaa ma loru naay dem man dong rek lu xew-xew ci man dong wax ko sama yaay mu ne ah ndeysaan lu de doy na waar mu nga mahabbatu sunna wa daayina ilayha waaw ma wax ko sama papa kon damaa juum ndax booba sama yaayu làqu na kon liy so liy yokk sunu cofeel ci yonent bi ba ko juróom-benneel mooy dimbale ko dimbale ko dimbale ko ci loo koy dimbale fii sunnati yi da koy dimbale ci tasaareel ko sunnaam si allahu akbar bara nga koy dimbale waaw maa ngi ci nu ñuy xamee ne sopp nga yonent bi loolu laa bëgg wax da koy dimbale ci sunnaam si yaatalal ko ko waaw moo tax ma ne keroog bi ma gaaree Mercedes bi Sidi Xaali génn ci eh, waami gis may gaare keroog mbégte mi mu am ba fi nekk duma ko fàtte luy loolu mbégte mu mel ni kii de su ma amoon pexe maa ko jëndal oto ma far am oto waaw ma gis mu mbég di takk biir ni gone yi waxe allahu akbar waaw ma gis mu koy def ndeysaan waaye loolu bëgg gaa yi ci loolu lay tekki kon yonent biit it ni ñuy xamee ne bëgg nga ko mooy da nga koy dimbale ci lu tasaare sunnaam si di ko dund di jéem ñi ko de ñi la jege dund ko di ko def ci si bopp doo jàpp ne ku milut ni yow baaxut loolu de su ko def ku milut ni man baaxut ah loolu kenn ko def ku milut ni yow loolu tam kenn du ko def waaw alayhi salaatu wasalaam juróom-ñaaral ba ci ni ñu xamee ne bëgg nga yonent bi alxirs ala tabliqi daawati sonne yaatal wala jottuli liggéeyam bi nga sonne ko di ci xëy di ci gont di ci jànq di am di ca def di san rek ala tabliqi daawati moo tax ñoom aminta mboobu ñëla ca amerik ñoom Adja Borso ñoom ña ci Amérique <laughs> léeg-léeg ñu wala wax la benn baat boo xam ne sallaw dangay ngay bëgg ba suuraañ waaw da bëgg ba suuraañ waaw yàlla xam na ko kon tabliixu daawatihi na ci ñëpp nekk ndax nekk gi ciy nekk day tegtale na bëgg nga yonent bi waaw gis nga parti yi ne ci pénc bi ñi ci pouvoir beeg ñu opposé ñoom ñëpp buñ ñu sañoon seen angali camarade di yokk ñoom ñëpp waaw ku am baas ñu xëcc teg seen wet ku ñàkk baas ñu puus juróom-ñeenteel ba ci ni ñu xamee ne bëgg nga yonent bi mooy bul faral ñi koy def ñi jéem a ñaawalub deram bul faral ñi jéem a ñaawal ab deram bu ko bu leen faral ki jéem a teg ak kàddu ci deram ba ah bu ko jéem a faral ci dara waaw boo ko ko reconnaître fukkeel ba ci li ñuy xam bëgg nga yonent bi mooy bëri looy julli ci moom kasratu salaati alayhi sallallahu alayhi wa sallam loolu day tegtal ne bëgg nga yonent bi fukkeel bi ak benn ci ni ñu xam ne bëgg nga yonent bi mooy dangay bañ sunn euh, dangay bañ euh, bidaa loolu laa bëgg a wax da ngay seexlu bidaa fukkeel beeg ñaar tibay bi ci mujj ca keroog ca jataay ba mooy nga am ay teggin sa diggante ak moom boo demee fa mu tëdd bul fa nekki fotow bul fa nekki yuuxu bul fa nekki wax ca kaw xamal ne danga war a ami teggin am teggin ci yonent bi alayhi salaatu salaam ba doo ko sàllalu waaw doo ko sàllalu da nga jëtal sayduna teg ca muhammad julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi beneen bind ngoog buñ dundee ba suba yàlla ñu dund ba suba te ko ñëw ci tomb bu juróom-ñeenteel bi te mooy tomb ba nga xam ne moo ca mujj te mooy thamaraatu mahabbatihi buñ ko bëggee luñ ci amee jërë ngeen jëf ak seen fa rek ci jotaay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii tax yor seen i këyit bëgg leen firiñ fàncanal yi ci tubaab firiñ fàncanal ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bi C3S ak Fari Industrie ci ndox mu waalo mi yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataat wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu